asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem koy topp Fall 94 Walf Sénégal analyse chronique yi am na leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar na leen wéy leen di topp Fall 94 Walf Sénégal image bii ngeen gis ni nag xam ngeen ko yaakaar naa ne li nga xam ne mooy compétition lamb moom bu ñëwee ancien gloire yi nga xam ne daanaka mën naa ne dañuy rek di dem Xaadim Njaay mi nga xam ne moom yàgg nañ ko gis ci lamb ji mu dem ba nekk xam nga Eh, eh, eh, maanaam mag daanaka bëreetul xale yee bëre waaye damay gis ni daal moom commentaire bi mu war a commentaire pas nii mu <laughs> ni mu doon commentaire ci làmb yi nii yëfa xale la voilà da ngaa war a di indi say pronostic xam nga ñi nga xam ne dañuy bëre ñaar ñëpp say rakk la ñuy doon wala say doom nga wax ci wax joo xam ne parce que tamit loolu mooy li nga xam ne ni mooy avancé li nga xam ne moo di sport pour ndaw ñi mën di roy ci yéen bu baax a baax a baax waaye diw bu daanee diw danaa lekk xajak yooyu noonu tey ba gis nga koo xam nga nit ñaa ngi xam nga dagg sa vidéo bu noonu di coller affaire yi di la di xam nga yaa ko wax tamit wax dëgg yàlla voilà kon yaakaar naa ni xam nga mbirum sport moom dafa tëddee noo xam ne nii kenn xamul yàlla rek moo xam voilà liñ ci war a wax mooy da cee war a wax wax joo xam dafay équilibre même bu fekkee sa mbër la même sa rakk la même comme mën a doon na équilibre ba nga xam ne ni maanaam bu kenn du dagg say wax xam na di copier di coller yooyu noonu wax dëgg yàlla te wax bi nga waxoon wax dëgg moo tax gars yi di la daggal sa lii nga xam ne yaa ko waxoon wax dëgg yàlla voilà nga mbirum sport nag dafa nekk loo xam ne lu doy waar la kon yaakaar naa ni ku ciy def pronostic rek na nekk loo xam ne wax dëgg yàlla voilà na doon lu équilibre tëddee njaaxaay naay parce que yow euh, daanaka mën na ne écrit boo dem am na ñu la fa bëgg xam nga voilà am na ñu la fa euh, bëgg voilà kon yaakaar naa ni euh, di tëddee njaaxaanaay daal di def say xam nga pronex yoo xam ne nii ku ko dégg rek dina xam ne yow mi wax dëgg yàlla da ngaa tëddee njaaxaanaay waaye ayo bu diw daanee diw danaa lekk lii danaa nangam xam la loolu tey jii wax dëgg te loolu nag ñu koy def ci dëkk bi bari na di di di di waxee noo xam daal dafay mel ni rek sañ-sañ déedéet suñ suñ borom dafa nekk koo xam ne nii maanaam jaam ñi dafa am nu mu àndeek ñoom te suñ borom ni mu àndeek jaam ñi ku mun mënta xam eh, jëmmi suñ borom dina mel maandul ci lépp rek luy ñëw rek maandu ci xam am ñoo xam ne fii moom dañuy tàttu nit ñi di wax ne rek amoo mu tombé mais mbirum suñ borom dafa nekk loo xam ne nii lu doy am na koy ñu ko yàlla am na ñu ko yàlla am nañu yàlla wan lu baree bari nag ci ay rek waaye nag ñooñu duñ ko waxee duñ ko waxee comme nii voilà xam nga waaye dangay ngay gis koo xam ne bu waxee benn affaire mu tombé rek ñu acca waajaangoog fekk kooku ji ko wut sax waaje ñooñu duñ wax ñi nga xam ne suñ borom da leen di wan ay secret duñ ñimee sax wax voilà suñ borom nag am na ñoo xam ne ni may na leen ñu sañalaal am na ñoo xam ne may na leen duñ sañalaal voilà waaye nag nañoo xam ne daal yii nga xam ne ay sport la yooyu ku ci bañ a juum ak di wax loo xam ne ëllëg xale yi danaan dagg say video ak di kole del xool bu baax a baax a baax li ngay wax mu équilibré moo gën parce que tamit wax dëgg yàlla ay xale la sport la def euh, kay daan suñ borom moo ko xam waaw danaa lekk lii wala danaa def lii loolu aw fit munu ko weesu wax dëgg yàlla voilà kon nag ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaare bu baax a baax Fall 94 Walf Sénégal lii la leen indil kan xaadim ñu ngi lay nuyu lu bare bare bare di la wax rek bu ëllëgee suñu <laughs> laa digal nag waaye xam nga sport a demee noonu xam nga yéen da ngeen di far ba maanaam te yéen loolu moom waru leen ndax yéen da ngeen a tëddee njaaxaanaay ndax yéen ay enjeu groupe ngir am na ñu leen bëgg écrit boo dem am na ku la bëgg loolu da nga koy sóor te ñooñu seen i rakk lañ kan bàyyi leen xel bu baax a xam ne mbir mi fi mu toll mbirum xale la sport la voilà bu ko defee ngeen euh, waxee noo xam dana équilibre daal moo gën ngeen wax wax joo xam ne bu ëllëgee ñuy dagg seen i vidéo ak di taf seen photo dafay nekk loo xam ne lu yéeme lay doon Fall wala Walf Sénégal li leen di indil